jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jaajëfee xaadim rasool jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki yi jàkkaarloo noonu di ñu seetaan ñoo ngi santaat borom bi subhanahu wa taala di fàttaliwaat sunu yaakaar ci seexuna Ahmadul Xadim di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na ko fi yàlla gën a yàggal gën a dolli ak wéram ñi ngi waajalaat karawaan bi nga xam ne moom la ñuy amal ngir waajale ko màggalu Touba te di ko wax karawaan euh, grand màggal de Touba karawaan boobu nga xam ne dox nañ ko lu toll ci juróom-ñetti at jàpp juróom-ñeenti at te mu ne kon ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar yal na yàlla doole ay leeram wàcc si waat ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal lool te gën a dolli ak wéram mu jaar nag ci Cheikh Mahamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu organisation màggalu Touba waaye moo yore it kaddu xalif général kullu murit yàlla na ko yàlla jàppaleel boppam. mu wàcc ci commission bi nga xam ne moo yor communication ak culture te Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma jiite ko te di ko taxawee at yii yëpp ñu di ko ànd ak moom te muy njiitu liggéey bi. waaye mu jaar si nag ci sëriñ Modou Mbacke si moom sëriñ Moustapha si moom Serigne Malick basin mu ànd ko ak Serigne Khady Diakhaté mi nga xamante ne bii moom sëriñ euh, Serigne Cheikh Diakhaté Tindodi waaye bokk ci ñi saytu lépp lu jëm ci wàllu alquran ci dëkk bii di Touba. waaye fegoo ci ak sëriñ fallu si ak seen bokkam taalibe mii di wax ak yéen Fallou Galassi la ñu fegoo ci ak sëriñ Moustapha mbay ñu fas yéenee nag tàmbali liggéey bi tey jii euh, di euh, dimanche yamoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tubaab yamoo ak séntu bu njëkk ci weeru wolof ñu taxaw fii ci résidence Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul bi nekk ci jumaa ji fas yéenee tàmbali liggéey bi waajale ko nag incha allahu rabbi ci kanam tuuti danañ dem ci Cheikh Mahamadul Basir moom Cheikh Abdoul Khadir mu yëkkati déclaration bi nga xam ne baaxoo ne di ko def bu nu fa jógee danañ daal di jàll kër eh, Cheikh Mouhamadul Amin Baara fekk fa Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy xalifam Cheikh Mouhamadul Amin Baara mu ànd ak njabootu Cheikh Mouhamadul Amin Baara gépp bu subaa bu nu xëyee incha allahu rabbi di la 30 danañ daal di dem nag fa li nga xam ne moo di kër Serigne Mandoumbe fekk fa sëriñ Ibra Khoudia waaye ak yore kàddoom di Serigne Cheikh Bintou Mbacke ak mboolem njabootu Serigne Mandoumbe gépp ñu amal fa jataay bu am solo bu nu fa jógee eh, di le premier danañ daal di dem kër Serigne Afia mi nga xam ne moom Serigne Touba ñoo bokk lépp fekk fa Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ne mooy xalifab Serigne Afia waaye ki yore kàddoom di Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoul Akram Euh, le deux incha allahu rabbi danañ daal di jàll fi nga xam ne moo di Bambey séeréer danañ damit dëkk bi nga xam ne moo di gaat danañ def escale ci yoon wi waaye danañ fanaani incha allahu rabbi ngunjaan ngunjaan nag danañ fa amal jataay yu am solo euh, yoo xamante ne bi ñi ngi sentu ne kay def waxtaan wa moo di Serigne Gana Messere Maxtaar ak Serigne Xaadi Jaxate bu ñu fanaanee ngunjaan euh, le deux incha allahu rabbi bët seddi la trois danañ jaar daaray Serigne Madina jaar kër Serigne Moxtaar moom sëñ Abdourahman moom sëñ Moudou Mamoun bu ñu fa jógee danañ añee si xombal fekk fa nag Serigne Ibra Ñaamar ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi Serigne Touba yi dëkk xombal bu ñu fa jógee incha allahu rabbi ci la trois ji danañ daal di dem ci la bu ñu fa jógee danañ fanaani Touba Toul di dëkkub euh, Serigne Abdoul Khafour moom Serigne Moudou Mamoun moom maam Cheikh Anta fekk fa ki nga xam ne mooy borom dëkk ba di Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Abdoul Khafour bu ñu fa jógee la trois incha allahu rabbi bu ñu xëyee di la quatre. danañ jaar dëkk bu ñuy wax kokki kër sëñ Mor Diouf Ndorong bu ñu fa jógee nag danañ ko tëjee ji fi nga xam ne moo di reefon Touba Réfane nag di dëkk bu mag boo xam ne Serigne Touba dem na fa foofu it danañ ko ànd incha allahu rabbi ak ñi nga xam ne ñoo ñu yabaloon doonoon suñuy kilifa di Cheikh Mahamadul Basir ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma foofee nag la ñuy tëjee karawaan bi incha allahu rabbi ci ay conférence yu am solo ak ay thèmes yu wuute incha allahu rabbi. ñu dellusiwaat fii nag tey ci niñ ko baaxoo defee ci li ñuy tuddee. ala athari cheikh ni ko sëriñ lu waxe léegi muy loo xam ne bañ ko tàmbalee léegi yàgg na liñ ci jub jubluwaay bi nag weesuwut topp jeexiti sëriñ Touba ndax sëriñ bi fi jaar dafa bari ñi mu dafa bari ñi ko topp itam seeni jeexit dafa yaatu mm-hmm. kon ñett li seeni jeexit ñett li jeexit sëriñ Touba moo tax nag ngir màggal gi xam ne mooy dajewukaay jul ji ak taalibe yi moo tax ñu xalaatoon at mu jot at ñu tànn génn fànn wala benn gox ci réew mi ngir bu fee bu dee barab bu sëriñ bi na a jaar la ñu demaat fa fàttali la taxoon sëriñ bi jaar fa ak la fa xewoon bu dee barab boo xam itam ñu am lante woon sëriñ bi la mooy itam ñu defe ko noonu ñi nga xam ne itam njabootu sëriñ bi lañ wala ñu àndoonoo sëriñ bi itam ñu defe ko noonu ndax ñoom kat xam le leen mooy xam le sëriñ Touba moo tax at mu jot dañuy tànn kenn ci njabootu sëriñ Touba tànn kenn ci bokk yi bokki sëriñ bi tànn kenn ci cheikh sëriñ yi tànn léeg-léeg ñu tànn leen rek ci ñi nga xam ne ñoo bokk ñoom lislaam bokk ñoom réew mi hmm. ku ci ne am na ci barab yoo xam ne lañ seqoon na sëriñ bi yàgg na tere na ba histoire boo ko dul nettali di ko fàttale wala nga di ko bind bu yàggee day mujj mel lu far kon nag yéen ñi nga xam ne yéen la liggéey bi nekk ci seen loxo ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm di leen soññaat itam ndax na ngeen xam ne seen liggéey bi liggéey bu yaatu la liggéey la bu am jeexit ndax jeexit ji mooy ña ngeen di fekke ñooy dellusiwaat di ko wax Serigne Muxtaar am na ay yoon yoon at mu jot moo may fàttali ne ma liggéey boobu ñuy wax karawaan bi de xam naa lu lu soxal bokk julli ji la ndax ñoo ñëw bu fi di ko wax bokk taali bi itam noonu la leen itteele moo tax rek jii ñi nga xam ne tànn nañ leen ngir fàttali leen ak euh, fàttaliwaate lañ seqoon sëriñ bi ndax bu màgg li xasee ba dugg day xat ba am na ci loo xam dañ ko mën a war a leeral duñ ko def kon daal ngeen xam ne dañu ngeen koy cantu sëriñ bi ak ngërëm bi nga xam ne Cheikh Sidi Moussa bàyyi ko ndax ci biir ak xilaafam la liy tàmbale bi mu fi bàyyi ko yoon wi lépp lu ñu def ki fi nekk sëriñ Touba moo ci sañ digle moo ci sañ tere moo tax du ci seq benn jéego te laaju ko ci digal daaw bi nga xam ne yéen a ngi tàmbali liggéey bi par sens laa daal di jokk laa ko yëgal sëriñ bi leeral ko ko lépp ba xam ni mu daa demee mu jox waa ci digal yeesaar ko ren ji itam. laata ñu seqwaat benn jéego demaat nañ ba ci moom laajaat ko ci ndigal mu joxwaat ndigal li kon ngeen xam ne li ngeen def ci ndigalu sëriñ bi ngeen koy def kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan itam ci barke Sëriñ Tuubaa li ngeen ci fas yéene liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla na ko Sëriñ Tuubaa nangu amiin yàlla ngeen ca dajee ngërëmam yàlla na leen suñ borom aar sàmm leen ba ngeen dem ak jàmm dellusiwaat ak jàmm te dajee ci ak ndam loo xam ne mosuñu ko jàmm ñu ngi leen koy ñaanal bu baax te da ci rafet jot ndax euh, ndigal moom lépp lu ko loo xam ne euh, jiitu na ci rek yaakaar mën na caa tege ñu ngi leen sant bu baax di leen mos tamit lakk ba diwaan tuuti. ak ma wax waaye fii jërëjëf Serigne Bamba jërëjëf Serigne Bamba jërëjëf Serigne Bamba. jaajëfe xaadimu rasool jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfee xaadimu rasool. Cheikh Bamba yaay sunu assurance. Bamba. say ndimbal raw ay finance. sëñ Bamba. yow la nu jox sunu confiance. jaajëfati xaadimu rasool. am la moo am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance sëñ bamba amoo moroom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laa nu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ bamba Gabon walla bu France yaa nu gënal xaadim rasool cheikh bamba moom no violence bamba la woote di jëf ne silence sëñ bamba moo tax murit amul tendance nañu sant xaadim rasool sag wallu raw na ambulance bamba dégg raw na fréquence sëñ bamba ma doonoon sa résidence surveillé cey xaadim rasool tubaab yi ñoom dañ la daan menace bamba buur yi fi ne woon la offense sëñ bamba yorewuloo benn défense budul yoneen xaadim rasul gaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasul gaa basam benn tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg la Xaadim Rasool lii rekk doy na prudence Bamba bi bi ma yasrahul أصحى نقا فجاء بجاه أفضل لله لجاء حمدي لرب منكري من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتها ملاء محمد صلوات الله في أباد عليه فيه به كل به كلاء. kër gi moo di kër Cheikh Mouhamadou Lamine Cheikh Mouhamadou Lamine moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne xam nañ taxawaayam ci xam-xam xamit taxawaayam ci sañ-sañ xamit taxawaayam ci yoon wi nga xam ne moom la way juróom bu baax wa loon di ci liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam pas-pas bi nga xam ne suñ borom jox na ko ci ñu jëm si fii nag ci këram gi nga xam ne ci la ñuy ubbee karawaanu màggalu Touba ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ñu am mbégte bu baax tamit nag ci béréb bi nga xam ne da ngeen fee te ñu bari tamit umpale man nga ne euh, Serigne Baara mi mi tax ngeen jóg di tàmbalee si fii karawaan bi tey doom la ci Serigne Touba bokk ak Serigne Modou Moustapha ndey ak baay juróom wu jigéen di soxna Aminata Lo histoire am ñëpp dégg ko mhm. yàlla may sëriñ Baara moomu itam bu ma juumul menn moom képp ci doom ju góori sëriñ Touba moo juddoo fii ci Touba juddoo fii sëñ bi tëdd ci jumaa ji loolu nekk beneen cër eh, yàlla dogal mu jóge ca Daaru Xuddoos tamit dikk sanc guy mbind gii guy mbind gii bi ko sëriñ Baara sanc dañoo wax ni ku fi bay dee moom mu ñëw dëkk si fi fii dañoo dëkkoon wër ko kenn ñi ma fee jaar moom mu ñëw dëkk si fi def ko ba mu mel nii tey yàlla dogal tamit fii ñu taxaw nii moo nekkoon néeg bi nga xam ne ci la dëkkoon Cheikh Cheikh Cheikh Sidi Muxtaar moo ma ko wax ci làmmiñam bi mu fii def jàkka ju jëkk ja wën gi fi newoon ñu daggal ko mu wax ni wén gi moo nekkoon ci buntu néeg sëñ Baara Cheikh Sidi Muxtaar daf fi jàkka ñu ci julli ba mu yàgg mu ni fii lu ëpp loolu war na fee nekk daa dafiy tàmbali jumaa ji loolu mooy fii mu taxaw nii tey loolu itam mooy historique gu guy mbind ci ci ci ci ko mën a misaale yàlla dogal tamit guy nekkoon fa nga xam ne ñi ëpp xamuñu ko sax jàpp nañ ni gii la waaye ma nga woon fëlee ca wetu kër maawa dañ doon wax ne ku ci bind sa tur doo dem sawara mu muy lenn ci ci ci historique bi kon béréb bi béréb béréb la boo nga xam ne eh, xëy na dana gàtt ndax ndax ndax ndax fi leen war a dem yëpp bu ku ne waxee lu baree bari duñ ko mën a dajale ba mu nekk dara waaye pour résumer ko rek bi sëriñ Baara di jógee di jóge Daaru doos di sanc fii dañoo wax ne ku fi bay de mu ñëw sanc dëkk fii ba ba melal ko nii mu mel ba mu fi bàyyi ko itam euh, sëriñ Moodu Baara wootu ko mat ko sëkk di sëtu sëñ Touba bi mag ci sëti sëñ Touba góor yi sëñ Moodu Baara doon ci mag te xam nga sëñ Baara magul ci njabootuk sëñ Touba waaye sëtu sëtu sëñ Touba bu góor ci sëti sëñ sëñ Baara ku te magu ci loolu nekkaat beneen melaakal ba nga xam ne yàlla mayoon na ko sëñ Mour Baara itam amoon nu mu mel adduna sépp xam ko ñi ko fekkee xam ko muy lu wér koo gis xam ni kii buñ la nee moo wut sëñ Baara nga xam ne moo moo ko wut mu bàyyi la mu war def lépp mu def ko moo xam ci guy mbind la moo xam ci Mbàkke Kajoor la moo xam fu mu mën a doon def ko ci njaboot gi itam ndax sëñ Baara bi mu fiy jóge kenn ku nekk xam na ne ñëm fi bàyyi njaboot gu sew lañ waaye tëwut sëñ Mour Baara taxaw ci taxawaay ba mu ca war a taxaw yëpp ndax kat sëñ Bara lu coow li bari bari fi mu ne ñëpp a ko sutu fan 46 ans la am ci àdduna ñeent fukki at ak juróom-benn la am ci àdduna te ba tey jii mi ngi mel ni mi ngi dund. loolu mooy mooy mooy mooy mooy ngërëmul yàlla loolu mooy njariñam. mooy di mooy bàyyikoo ko fi te mel ne yaa ngi fi. te ku yàlla gërëmul loolu munoo ko am ku amul kiit ci yàlla loolu munoo ko am. Eh, li sëñ Bara wax ci guy mbind xam nga Cheikh Mawlin Bara. balaa muy sanc guy mbind Serigne Bara mi ngi ko yebaloon sànnoos ci kër ndijaayam foofu la nekkoon vers 1910 ba taawam bi di Cheikh Mahamadou Hafiz di sëñ Modou Bara foofu la gënee àddina ci ginnaaw bi nag la ko Cheikh Cheikhul Khadim woo mu ñibbisi waa Touba jox ko ndigal ci 1913 mu sanc dëkk bi nga xam ni quartier bi nga xam ne mooy Touba guy mbind hmm. lan moo waral turu guy mbind itam mooy Touba juróom-ñaari guy dañ fay nekkoon am na guy goo xam ni moom la ñuy wax guy taxe fii ñu denc soxna Aminata Lo mi nga xam ni mooy waajatu Cheikh Mawlène Bara am na guy gu ñuy wax guy fukki sër moo nekk fële ci armeel yi yi nga xam ne mooy Baqiya nga xam Cheikh Oumar bi muy wër leeru Cheikhul Khadim gis ko di jóge Màkka ñëw bi mu ñëwee foofu la dal am na fa ab diir soog a dem Mbàkke Bawol am na guy gu nekkoon Gédé du sore kër sëñ Modou Mamoun Bousso moom it guy ziar lañ koy wax ci corniche bi am na benn guy boo xam ni mi ngi mbal ci benn dégg bu nekkoon foofu moom itam ak guy gi nga xam ne mi ngi doon Touba guy mind seexul xaddi bi mu nekkee fii ci Touba dëkk fii ci jumaa ji mu nekk këram léegi daan génn yoor yoor ñëw fii ci guy gi ab yoor yoor di fi bind bind gi seexul xadim toog daan bind moo tax ñu daan wax naan guy gi sëriñ biy binde moo waral turu guy mind loolu moo tax li sëñ baana wax nit ñëw di ko barkeeloo di ko di fi bind seen tur ngir barkeeloo loolu waaye loolu moo waral tur wi guy fukki sër li tax guy fukki sër moo di balaa koy entouré il faut nga boole fukki sër mu soog ko mën a wër ndax dafa réer moo ko waraloon waaye turu guy mbind bi loolu la moo ko waral sëñ Baara mi ngi ko sanc 1913 euh, ci ndigalu Cheikhul Khadim bàyyi ko Daaru si ñëw sanc si ko loolu mooy Touba guy mbind bi si Sidi Makhtar nekk xalifa général des mourides karawaan bi tàmbali li mu jur ci defar ak mbokk tax ak mbokk moo fi jiitu lislaam mm-hmm. ak mbokk moo fi jiitu ay tariixa te ñëpp Sénégal ñu baax ñëpp ay bopp bokk lañ ngeen di dugg ci biir àll bi ñuy gindikonte di xam seexul xadiim li nga xam ni moom la doon liggéey ak moom mooy am njàngaleem te mooy tabax doomu aadama jàngale yar yee loolu moom man nekkoon doxin sëñ Tuubaa ngeen dem wane ko ba sëñ Tuubaa am ci ay tur ci loola sabab ko Cheikh Sidi Makhtar am ci ay tur loolu sabab ko ngeen ànd ak maanaam mu xaddam yu bari jóge Saalum ci Sénégal ñëw fekk ñu fii ci kër sëñ Tuubaa loolu seenub liggéey la kon ñu ngi wax xam du benn yoon du ñaar yoon ñetti yoon kon loolu liggéey la boo xam ni korawaat bii li mu jur am na solo trop kon ñu rafetlu ko ci ñëw gi ngeen xam ne ñëw ngeen ko fii ubbee ko fii ci kër Cheikh Mouhamed Bara mi nga xam ni tey bu ñu noon doomi sëriñ bi kenn ku nekk fa nga fa nga ganee àddina fa ngay ñibbi mel moom rek mooy des Touba kon loolu jox ngeen ki ko mbir mi jox ngeen ko borom mhm. ñu ñaan yàlla suñu borom ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin te xam ni safar safar lu ñu am ci lu baax moo ñu ko may ba bërki dé ba démb li ngeen daj ndakaaru ñëpp daj ko nga xam ne loolu lépp liggéeyu sëriñ sëriñ bi la Euh, kon sëñ bi ñëpp a ko bokk. Euh, liggéey bi ñu fi rafet na yàlla nañ ci yàlla dimbali barke suñu alayhi salaam ñu sant leen gërëm lañ jërëjëf. amin baara albaki ya rabbana inal wara tadarrahu li awliyaika mahanniya son ilayka ya rabbal wara ya rabbana يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجي لنا لطفا وامنا يا أعاد yaa man taala lam yakun ku fan maat ma feeñal fi sëriñ baara mbàkke moo baax lamin doomi lamin ndaw boroomi xar baax fa jaajo moo ca gën gaaw lum wax boroomam mu ni waaw day fal di folli ci lu gaaw bàyyi seex siidi muxtaar mat naa ragal ci xarnu bi jaasi dogal jëfakun la yàlla daat ba mu ñëw mu jox yonen ba mu jox maami Seex Mustafa boo bëggatee buur na fekk buur bëgg la buur yàlla mi moo bëggal boppam sëriñ baara sëriñ bu naw sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu nawiru bunyaanu sëriñ baara sëriñ bu naw sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu nawiru buniyaanu maami Seex Mustafaa Seex Mustafaa na saw fan gudd nga wér te sax ci jàmm ku amiina yaa rabbi dunu sooyib ma woon ak nooyin ma woon na yàlla boole seen at woon ndax safani mag ci xarnu bi gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam gërëm ku tedd ki ñoo ngi yëkkati suñu kàddu ci turu ak ndigalu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñi Cheikh Mouhamadou Amin Bara fii ci Touba Guy Mbind waaye itam muy nuyoo suñu wayjur Baye Ahmadou Makhtar tey muy dalal délégation bi nga xam ni mooy karawaanu màggalu 18 safar bu Touba almahrusa bi nga xam ni xalif général de Mouride moo joxe ndigal jox ko Serigne Bassirou Mbacké Cheikh Abdoul Khadir moom mi nga xam ni moo yore liggéeyu màggalu Touba mu teg liggéey bii nag ci loxo Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma waaye karawaan bi sëriñ Modou Mbacké si ak sëriñ Xaatu Jaxate ak sëriñ Galas Fallou Galas Sill ak ñi ci àndal ñëpp ay at a ngi nii saa su weeru safar tero ñu dugg ci senegal gépp dem ba Casamance ba Fuuta ba Waalo Kajoor Njaamur mbay wuñ fenn ba dugg ci biir njabootu Cheikhul Khadim tey ñu ñëw fii ci ëttub Cheikh Mouhamadou Amine Bara ibnu Khadimu Rasoul ñu ñëw tey ci kenn ci njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci njabootu Cheikhul Khadim muy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ibnu Khadimu Rasoul waaye balaa ñu ñëw ci moom ngeen ñëw ci ëtt bii di Touba Guy Mbind nga xam ni sëriñ Bara mi ko sancoon 1913 ci ndigalu waajuram cheikh Mouhamadou cheikhul Khadim bi mu ko yebaloo Sanosi ci kër ndijaayam mu nekk fab diir ba taa taawam di cheikh Mouhamadou Baara Mouhamadou Hafiz foofu la gënee àddina ci li ko sëriñ bi woowaate mu ñëw fii sañ ci Touba Guy Mbind ci 1913 Guy Mbind nag mi ngi nekk ci pencu penkub Touba penkub Touba mooy li tàmbali ci buntub bi jëm penku ba kere ngay àgg ndindi loolu mooy Guy Mbind maanaam ndaamaatu ak daaru rahman ak nit ñi Cheikh Maodo Fadil ak xusnul euh, maab te muy wax di ak surra ñëw seq guy mbind li waral baatu guy mbind bi wax nañ leen ko cheikhul xadim da daan xëy di ñëw fii ci guy gi guy gi mi ngi nekkoon fii ci kër ku ñu wax Mor Sàmb bi ñu lotisee ci bunt këram la nekkoon foofu sëñ Touba bi mu nekkee ci jumaa ji sanc Touba léeg-léeg dafa daan ñëw ab yoor yor di fa bind lenn ci xaside yi wala alxuraanul karim waaye lu man di xew sëriñ bi daana ñëw foofu doon bindee foofu moo tax ñu daan ko tuddee guy gi nga xam ni fii la sëriñ bi daan binde moo waral turu guy mbind Cheikh Mawlid Baara nag mooy ñaareelu ñetteelu doomu Cheikhul Khadim mook Cheikh Amadou Moustapha ñoo bokk waajur wu góor bokk waajur wu jigéen ci Cheikhul Khadim ak soxna Aminata Lo mi ngi gane àddina fii ci Touba 1891 et nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru rakkaati gàmmu bi nga xamante ni itam gane na àddina ñi sëriñ bi àndaloon te muy eh, ahlul himma laa leen di tuddee ndax bi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam feeñoo ni ko rabbi asaabuka bi himmati bil himmati wala turab mi tafsi faqat ñu jaayante woon ak moom ca Mbàkke Kajoor nekkoon ñeent fukki góor ñooy ahlul himma ñu ànd ak seex Cheikhul Khadim ba ñëw Mbàkke bawal ba sëriñ bi sanc Daaru Salaam ba Cheikh Mouhamadul mustafaa feeñ Daaru Salaam ci weeru Muharram ñu tegaat ci juróom-ñaari weer Cheikh Mouhamadul Falilu feeñ ci weeru Rajab ba sëñ bi sanc Touba ci atum 1886 jëm 87 Cheikh Mouhamadul Baara moo fi jëkk feeñ ci doomi sëriñ bi te moom rekk nag moo fi feeñ ci doomi sëriñ bi ñi nga xam ne ay góor lañu bi mu feeñee itam sëriñ bi gis nañ ci moom mbégte moo xam ni néew nañu koy gis ci moom ndax ñi nettali histoire yi ki ko mel ni Baye Gallo Mbaye nga xam ni fekk na lu bari loo xam ne ay waajuram wax nañ ko ak Cheikh Modou Moustapha lu bari ci moom lañ ko xamee ak sëñ Moustapha Abdourahmane Lo keroog xat Khadim mbég na mbég moo xam ni néew nañu gis ci moom kanamam xar kanamam bi mu mel noonu jël ko bayit boobu nga xam ne moo nekk ci Mawaahibu naan ki nga xam ni ñi bëggoon àgg ci seen borom ki ki leen di àggale seen borom tey agsi na ki indaale seen mbégte seen ngërëmu seen borom agsi na mu Cheikh Mawlou leen baara kere ci la woo ñooñu ñëpp yeewi leen ni leen li ngeen doon sàkku ci seen borom gan gi ñëw indil na leen ko mën ngeen a yeewi ko. mooy sëriñ bi nga sëriñ bi nga xam ni moom la Cheikh Mouhamadul Amin Baar ibnu Xaadima Rasul indaale ñi nga xam ne ñoo jaayootal sëriñ bi ca nekk ñeent fukki góor nga xam ne wax nañ ko ba tàyyi wax nañ rek tur yi ba tey euh, dara ñu ci bamb sëriñ bi jël ko tudde ko soppeem ba wasilaam ba sëriñam ba seydina muhammad ali isalaatu wasalaam moom jëppam moo ko tudde yàlla dogal ñu teg ca diir bu gàtt ay weer juróom benn weer wax nañ ko nii juróom-ñaari weer sëriñ bi waxtu wii la toog tàkkusaani suuf noonu la ko sëriñ abdourahman lu nettalee foofu ñu denc sëriñ bi ci barab bi fi la Cheikh Mouhamadou Mbara ganee àddina moo tax sëñ Modou Mbacke si mën ni leen tey fab ngeen yëf yi jox ko boroom ndax suñu dee woote màggalu Mbacke màggalu Touba ñëw tàmbalee tey ci Cheikh leen Mbara ma wax la ni na tey bu ñu noon kenn ku nekk fa nga ganee àddina foofu ngay ñibbi sëñ Bara rek mooy des Touba kon su ngeen ñëwee indi karawaan bi fii jox ngeen ko borom foofu nga xam ne fa la Cheikhul Khadim tëdd fa la Cheikh Mouhamadou Amin Bara ibnu Khadim Rasoul ganee àddina ba mu tegee juróom-ñaari weer sëriñ bi woote tàkkusaani suuf ni waxtaan ak ña fa nekk ñëpp soxna Awa Boussa nga fa soxna Amintu Lo ma nga fa bokk na ci kàngam yi nga xam ñi ko fekke woon ñi nga xam ni ñi ànd nag sëriñ bi di magi taalibe sëriñ bi ni leen sama ruu gi de sama borom dafa wax daf koo soxla waaye may na ma su ma amee ku ma mën a faatul ma mën a àggale liggéey bi soxna Amintu dafa daal ni bërit ni ko man jaam-jaamaan rek laa ñi bokkal nekk ci kër gi di sàkku ngërëm maay seenu jaam ñoom ñëpp samay sang lañ ñaar laa fi am muy Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou mu Bara da ngay dangay dangay bàyyi ma dem demal ñëpp nga sàmmal ma leen ndax li ma gis nga yenal ko jaam bi ci aw yu sa dënd bi dama seetaan mukk doomu aadama yi di ko ñàkk kon baal ma dem demal leen ci ginnaaw loolu la dem ci ginnaaw néeg bi benn ndox la doon wut wala matt muñ doon toggee foofa la ko ndox suuf bi mu ñëwee fekk na sëriñ bi tàll tàmbali kàbba di julli laata sëriñ bi noppi julli gi soxna Aminata Lo wujji na boroomam Cheikh Amadou Bara ci juróom-ñaari weer dem raam wuti soxna Aminata Lo bi sëriñ bi sëlmalee moo ñëw jël ko bi mu ko jëlee nag foofee am na benn leetar boo xam ni Cheikhul Khadim moo ko bind ca ca jëf joojee nga xam ni waajuram moo ko jëfal di jëf ngir jëmmam ndax dañoo wax ni yoon wi yoon jaayante la du ab tarixa Cheikh Abdoulaye wax na ko la yàlla waxoon saxaaba yi wax ko yonent bi ñu ko dañoo bëgg a jaayante yow jaayante gi ñu jaayante yow nga warlul ñu ci aljanna yonent bi mën de mu leen man de moom ma àjjana moom ma sawara ba leen ci ba leen koy gàddul mbaa ba leen cee tee dem waaye suñu boroom wàccee benn aaya ni ko inna allaha ashtara minal muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ila axiril aaya suñu jaayanteeg yow joxe seen bopp joxe seen alal ci yoonu yàlla sax ci ndigal yi yàlla jëlee na ko aljanna di leen ko fay aljanna loolu moo waral ñaan ku joxe sa bopp dem aljanna du waxi sëriñ bi mais waxi yàlla suñu borom subhanahu wa taala ak diggante yonente bi alayhi salaam ak sahaaba yi bi loolu amee mu ne laqad radiyallahu anil mu'minin is yubayyi'una tahta shajarati jaayante googu nag moo war a soxna Aminata Lo joxe bakkanam ci sëriñ bi sëriñ bi la mu ko ca fayee mooy bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu faalam bi annaka yaa muhammad al amin sa tanaalu maqaman yaghfiruka fihi jamiu amsalika wa anna kulla man kaana maaka jamian laa yarawna illa ma yasnu wa yartaon fi dunia wal axira wahum yadxuluuna al jannata bi xayri xisaabin wala tashkuk fi kaw ni haasa min allaahi wa rasulihi ilayka wa ni wasalaam liñ jubli ci wax ji mooy li sëriñ bi fayee Cheikh Amadou Bara ci loolu waaye ñun dañoo dañoo tànn bàyyi baatin bi fële tey wax ci jëfam ak niteem ak laaya biiram goo xam ni moom la doon doxee ci àddinaam akum njàngale gi doon jàngale moom lañ tànn am na ñoo xam ne amuñu moroom waaye moroom mooy koo xam ne xëy na yaag jamono yaa yaag moom yéen a jamono ne jamono loolu ñu tuddee moroom foofu ne ko dañ leen ci ne ndax képp koo xam dafa ànd ak yow du gis lu ko naqari àddina ak àllaaxira dina dugg àjjana te kenn du ko xisaab ne ko bul sikki sàkk ci lii ci yàlla la jógee subhaanahu wa laa jaar ci yonte bi alayhi salaam ñëw ci man mi soog a ñëw ci yow lool moo nekk ci lettre bi loolu amee itam sëriñ bi fab soxna Cheikh moo leen baara jox ko soxna Amin soxna Awa Bousso yaay Cheikh Mamadou Fadel booba soxna am na soxna Mariama Kunta mu boole leen ñoom ñaar di leen nàmpal ab diir ginnaaw bi sax sëñ Tuubaa jëlaat na ko jox ko <clears throat> yaay sëñ Modou Mamoun moom it nàmpal na ko ab diir kon Cheikh Mouhamadou leen Bara mën nañu wax ni ñu bari sax dañuy xaw a kii loolu waaye yaay sëñ Modou Mamoun sëñ Fallou Gala Sill nàmpal na sëñ Cheikh Mouhamadou leen Bara kon bi mu waree dal alxuraanul karim itam ku tedd ki barkelal na ko am soo ko jox sëñ Abdourahmane Lo jaar na ci moom bi mu dem ci géej gi jox na ko boroom daaru ni mu ko joxe Cheikh Mamadou Moustapha joxe ko Cheikh du Fadal mu yor leen jàngal leen yar leen ni mu yor woon ñëpp ci biir loolu itam bari na ci xew lool bi muy jàng itam euh, moom Cheikh moo leen baara ba àgg ci aay bi ñuy wax xëy haata xëy haata lima tuwaaduna foofa la ko ab feebar dale la wax pest bi mu ko dalee maam Thierno di yàlla na ak boroomam ni ah doomi sëñ Tuubaa yii ma sëriñ bi dénk bu ci kenn naree génn àddina day daal am na mu ci yu baree bari teg njabootam gépp am ko ko dégg ca ginnaaw ñëw yuuxu ni man de bu fekkee kii dafa nar a génn àddina Cheikh Mawlin Bara man jaral na ma génn àddina kooku ca bis boobu la génn àddina bi ko loolu dabee nag moo tax Cheikh Mawlin Bara waxam leeratul ak déggam itam neexatul waaye teewul àggale na àlluwaam ba bindal Cheikhul Khadim ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ni ma doon jàngee itam mooy dañ koy bindal bind bi ci àlluwa ji mu koy xool ba mokkal ko su ko mokkalee dañ koy raxas mu bindaat ko noonu la jànge ba jàng alxuraanu karim ba mokkal ko ba bind ay kaamil yu bari xam-xam itam kenn xamul nu mu ko jànge ndax boo demee ci xasida gi ñuy wax Munawwirul Bundaan ma ngi cay wax naa inna allaha yuallimu may yashaau bi بدون خراءة ولا كتاب بدون كتاب خراءة ولا بدون yu إن لا يسال bi يشاء بدون خراءة yàlla man na xamal ku ko neex te kooko bi jàng kon dañuy jàpp ni yàlla mi nga xam ni mooy joxe xam-xam moo jox Cheikh Mouhamadou leen Bara yenn xam-xam yi nga xam ni bind na lu nekk ci wàllu xam-xam ni ñu ko xamee ndax buñ dee xool ci njaboot bi ñëpp a bind ñëpp a xam ñëpp la bi def ci ñoom waaye li mu bind ci ay ay xasaayit bind ko ci ay téere li jëm ci tasawuf yi jëm ci ay tawasulaat yi jëm ci wàllu tawxiid yi jëm ci wàllu tarbiya yi wàllu jëm ci wàllu wàllu wàllu wàllu asraar lim ci bind kenn bind ko moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon nit la koo xam ni dafa mel ni li nga xam ni moom la seex Cheikhul Khadim junjoon ci leetar boobu bi waajuram génne àddina loolu lépp sëñ tubaa da ko dëxëñ ci Cheikh Mouhamadou Lamine su may wax dama naan cheikh Mouhamadul Amine Bara mooy waxe na wi nga xam ni ci la cheikhul xadim dëxiñ ay secret bi mu demee ba war a mat a samp kër wax naa leen ko 1910 ci la ko cheikhul xadim yabal mu dem sànnu si kër nijaayam waaye ginnaaw fu waay dem da nga fa war a liggéey bëgg fay bay bëgg fay euh, liggéey xat suuf su xat la ci la ko sëriñ bi wooyewaat mu ñëwaat fii ci Touba 1912 nga xam ne ab taawam sëriñ Mouhamadou Baara foofee ci Touba Sanosi fa la ganee àddina bi mu ñëwee itam mu boole ko jawriñ ju mag yi sëriñ ñaan sëñ sëñ ñaan mu sanc fii ci atum 1913 bi mu fa sancee 1913 am fi ab diir Cheikhul Khadim yebal ko mu doon sanc Daaru Mbàkke Kajoor booba 1912 wax na boroom daaru mu sanc Daaru Moxti mu bàyyi fa maam Cheikh Awa Balla ak sëñ Mbacke Kajoor ak mbokkam mu baax ma muy maam Amar Fall Mbacke bi sëriñ bi woowee maam Amar Fall Mbacke moom Cheikhul Khadim ni ko dama laa bëgg indi seex Cheikh Mouhamadou leen Baara mu wéttali leen waaye ku jafee nekkal la sëñ maam Amar Fall Mbacke da ko ni Mbacke dañu mën nañoo nekk ak moom ndax du ñu xëccoo moom dara te lépp lu mu bëgg danañ ko defal danañ ko bàyyi ak moom sëriñ Baara bàyyi ko fii jaar ci boroom daaru dem sàcc Mbacke Kajoor moom itam ci atum 1913 jàpp 14 ci la sàcc Mbacke nekk fa di jàngale di tarbiya di liggéey nga xam ne moom ab jàngalekat la woon nga xam ne Mbàkke Kajoor bi fa Maam Mor Anta Sali ñëw dafa doon jàngale Cheikhul Khadim itam radiyallahu taala anhu dafa daan jàngale ndax bi muy jàng nekk at yi bareegul ci saayir at yi bareegul ci saayir eh, waajuramu sell wa alxaadi moom Mor Anta Sali gisoon na ubbi ko gu mu amoon ci wàllu xam-xam ba bari na téere yu mu ko daan jóor doon ko ko jàngal sax ngir mu war a mën a wëlbateeku di ko jàngal ñi nga xam ne doon jàng si moom Cheikhul Khadim kon Cheikhul Khadim moom itam daf daan jàngale moo Cheikh leen Bara itam jàngale moom la doon ci waajuram nga xam ni su masaa di bind dara te euh, maanaam lettre en tête bi Mouhamadul Amin Bara mu dare sul Qur'an la ci defoon cachet bi mu amee itam Mouhamadul Amin Bara mu dara sul Qur'an moom la daan cacheté kon ab jàngalekat la woon moom Cheikh Mouhamadul Amin Bara nekk koo xam dafa fonkoon liggéey façon liggéey yëpp nag da ko daan liggéey ci loxol boppam ngir njaboot gi mu yoroon muy taalibe yi muy waa kër gi dafa yoroon ab magasin bu mag def ci ay piis def ci ay machines yoo xam ne moom lañuy ñawe li dongo yi daan sol yëpp ak waa kër gi moo daan jël piis yi xotti ko dagg ko ñawal ko boppam ci kaw machine bi jox ñëpp ñuy sol nga xam ni kon dañuy wax ni méccam téyeer moom Cheikh leen Bara moom la woon doon na ko de bokk na ci li mu daan liggéeyee su ma saa bëgg daaj ay seng itam ab baraag wala bardaas wala lu man doon moo ko daan daajal boppam ci loxol boppam li loolu day firndeel ni dafa fonk liggéey li yàlla wax ni i ne i'malu fa sayarallahu war a rasuluhu wal mu'minun nit dafa war a liggéey Cheikh Mouhamadou Bara jàngale na liggéey kenn bañ cee xeeb benn métier ci wàllu mbay tarbiya itam daf daan tarbiya di jàngale di yar di xàjjale góor ñi ak jigéen ci wàllu tarbiya bi nga xam ne mosul bëgg bëgg mukk jigéen ñi ak góor ñi di gisante bay jaxasoo ndax euh, sëriñ bi wax na ma mas na ma wax ni Cheikh Sidi Maxtar sëriñ Baar da daan wax ni euh, nit buy sàkku yàlla sàkku yàlla waxuñu jaxasoo booy sàkku yàlla di wut tarbiya di wut di wut barke dangay moytu jigéen di la gis da ngay moytu jigéen di la gis di la ndax da wax ni ay na ngeen moytu jaxasoo gis jigéen jigéen di leen teg seen bët ndax xeemeem di ñu leen xeemeem day mel ni rab yu sar rab gu dugg ba sar rek day di leen moytu jigéen ñi di leen teg bët ndax loolu baaxul ci yéen góor ñi yéen itam jigéen gis ngeen ngeen li gis day wàññi seenu yool ci liggéey bi ngeen liggéey ak sàkku nga xam ne ngeen ko sàkku barke day tax li ngeen di sàkku day yeex kon loolu doon tarbiya nekk koo xam ni itam ku bëggoon liggéey la bi mu nekkee Mbàkke am na fa tool bu mag tool ba sëñ Moustapha mii moom mooy bi nga xam ne lotissé na ko ngir bëgg ñëpp mën fa am ay kër ba mu jógee mu dem fu ñuy wax Mbarakan juróom-ñaari kilomètre la ci Daaru Moxti walla juróom fu ñuy wax Daaru Rahman sanc ko lan moo tax mu sanc ko dafa doon liggéey la sëriñ bi bi mu nekkee njaareem ndax mën naa la wax ni seex Cheikh leen Baara lépp lu mu am mbaa lépp lu mu def ci nekkuk sëriñ bi la ko def ci nekku sëriñ bi la ko am ndax juróom-ñeenti at rek la ko sëriñ Tuubaa jiitoo kon daanaka li mu doon def lépp ci nekkuk sëriñ bi la ko doon def li mu am lépp itam ci nekkuk sëriñ bi la ko am li mu doon sanc lépp itam ci nekku sëriñ bi la ko doon sanc moo tax mu sanc dëkk yooyu fu mel ni Mbarakan fu mel ni tubaa Ndiok Mbacke Ndiok dëkku sëñ Baara Karim bi fu mel ni euh, Touba Ndiambour fu mel ni Mbacké baari fu mel ni Xelléré fu mel ni Touba Kébémer fu mel ni Touba luga yooyu yëpp dëkk baa mag fekk si ko waaye sëñ Bara da ko sañtoon doon fa liggéey te lépp lu mu fa mës a liggéey da ko daan yóbbul ko tedd ki ci njaareem même ñax yi nga daan gis njaareem euh, sëriñ bi daa ci def ndox ci wanag ya bokk na ci Cheikh leen Bara moo ko daan liggéeyloo Mbacké Kajoor ñu ko daan ñoo ko daan liggéeyloo Touba Mbarakan ñu koy yenu di ko yóbbu ba njaareem di ko yóbbu sëriñ keroog sax am na lettre bi ma lay wax nii li ma la wax mooy sababu nuzul bi waaye bi nga xamante ni jëlee nañ njaq yi Touba Mbarakan yóbbu ko njaareem keroog ba ñu àggee la sëñ bi joxaan leer ñu indi ko Cheikh Mawlid euh, ngir xamal ko ni ko lii lépp sa waajuru sell wa soxna Aminata Lo ko liggéey ci loolu la nekkee Cheikhul Khadim bindal ko ay kaamil di liggéey di ko jox ba Cheikhul Khadim 1927 mu génn àddina ñibbisi fii ci Touba. bi mu ñibbisee Touba Cheikh Sidi Matar wax na ma ni fa mu nekk ca Njàmbur da daal di wàcc lal ba toog ci suuf jox boppam Cheikh Modou Moustapha def ko muy ab sëriñam daal di fay déparé ñëw si ñëw njaareem fekk fa Cheikh Modou Moustapha jox ko boppam def ko muy am sëñ Toubaam def ko muy léppam nekk ab taalibe nekk murid saadix liggéey ko ci fànn yëpp ba bi nga xamante ni eh, wax naa sax waxu baatin du ci dugg waaye ci liggéey bi nga xam ni moom la Cheikh Moustapha sóobu te muy liggéeyu jumaa yi Touba gàllankoor yi bari woon lool Cheikh Mawalini Ba am na fu mu ci féete fu bari waaye saayir bi laay wax saayir bi mooy bi ñuy gas raay bi bokk na ci ñi mbooloo bi mu joxe bokk na ci ñi ëpp mbooloo moom joxe ci liggéeyu raay bi. maanaam lépp lu mas a liggéey ci ay addiya ci tool yi jox na ko Cheikh Moustapha mu def ko ci jumaayi Tuubaa ji nekkoon ku ko déggal ku ko jege am fu mu ko féete woon itam fu bari nga xam ne ak taalibeem am na benn bis boo xam ni Cheikh Modou Moustapha dafa ñëw jënd ay dàll ñu ko jox Cheikh Modou leen Bara ndax gis na ni moom amul ay dàll ñu ko Mbàkke am na ay dàll ak taalibeem moo ko moyul suy ñëw njaareem di la seet sol ay daal sol musa sol ay daal ci biir dëkk bi ndax warmaal goo xam ne da koy warmaal cheikh moom Moustapha radiallahu taala anhum ajmain ci loolu la nekk moom cheikh Abdoulaye Leen Baara di dimbali nit ñi nag di leen li ci wàllu baatin ndax ñu bari dañuy wax ni sëñ Baara dafa tàng ñu bëri dañuy wax ni sëriñ Baara dafay alage ñu bëri dañuy wax ni sëñ Baara daan lakk néegi jaamu déedéet loolu sore naag loolu li am Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nitu yàlla la woon nekk jaamu yàlla bu dangu dogalu bu yàlla nekk wàll yu kaamil boo xam ne ñëpp nangul nañ ko ko koo xam ni daf daan jóg guddi ak bëccëg di dox di xeet li doomu aadama yi di dem ci dëkk yi di leen bindal seeni tànk ngir kum sa tànk at moom doo ci faatu léeg-léeg kenn jox ko tànkam seex moo Lamine Bara Fadilu mas na koo nettali nee na bi mu nekkee balal di jàng bi bi mu koy tàggu si guddi la fa ñëw fekk ko bal ni sama turandoo wii moom laay seet si ndax damay tukki tukki bu yàgg te duma gaaw a dellu si nuyonteeg moom saafonteeg moom foofu jë ñëpp ñëw di ñëw kenn ku nekk di ñëw mu lay jox sa nga ko jox sa tànk mu lay bindal wala sa loxo kum bind sa loxo doo faatu ci at moom wala sa tànk am ko jox tànkam sëñ Bara ni ko du ma la bindal ndax ki dafa war a faatu. mu ne ko du ma la bindal eh, ndax ki maanaam ku war a génn àddina. ci at moomu du la bindal sa tànk. mbaa balaa lay bindal di am loo jotowoo di nga am loo ko jot njot mu laaj la ko mu soog laa mën a tànk bi ñu koy liwaayu ba mu xanaa mën naa joxe nangam mu soog a joxe nangam loolee mu bind tànk yi kuy def loolu nag ko tànguloo kuy def loolu ku laabir nga te guddeeg ba ci loolu daan dox nitu yàlla amul benn nitu yàlla boo xam ni yàlla mooy la xadd xalaat na insaan fii ahsani taqwiim ngay sopp mbindum yàlla moom nitu yàlla yëpp wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina wàllu yàlla woo gis yonent yàlla boo gis ci luy xetal doomu adama ci lay xëy ci lay gont Cheikh Mouhamadou amin Bara mi itam ca loolu la nekkoon sëñ Abib Sakho mi ne kër sëñ Souhaïbou sëñ Souhaïbou moo ko nettali nee na sëñ Bara dafa mës a ñëw fii waajuram moom sëñ Abib Sakho moomu bi mu ñëwee euh, sëñ Bara xool ko ni ko jox ma fanweeri dërëm soo ma joxee fanweeri dërëm at mu ne daa dërëm bu ne daana ko def am at walla ñetti dërëm dërëm bu nekk fukki at la sëñ Soye moo koy nettali nee na sëriñ boobu bàyyi sëñ abi Sakho dem fexe ba indi ko sëñ Baara laaj sëñ sëñ sëñ sëñ Soye bu nee na ma bind ko takk ko nee na booba ak bi mu faatoo fanweeri at ak ñaar la ne kon bi ko sëñ Baara wax loolu ñaari at rek moo ko dese woon mu yokk ko ci fanweeri at noonu la sëñ Baara daan doxee koo xam ni dafa bëggoon loolu ay xale fu mas a toog ndaw ñaa ko wër Cheikh Sidi Makhtar wax na ni suñ masaa indi reer bi balaay la reer day tibbal xale yi seen ndekkil suba moom cere lañ daan ndekkee su xëyee day woo ñëpp ñu ñëw mu tiim leen di leen defal ñuy ñuy ñuy ndéego ba ñu suur kenn ku nekk mu ñaanal la raay sa bopp soo waree jàngi dem jàngi soo waree toog ci moto woo jàng toog ci moom noonu la Cheikh Mouhamadou Bara nekk woon nekkoon ku amoon li ñu wax li tubaab di wax diplomatie maanaam nit goo xam ni da ci mën a jëflante ak ñëpp te jëflanteeg nit ñi mu ngi tàmbalee sa say bokk ñi mu bokkal Cheikhul nga xam ni bëgg nañ ko bëgg goo xam ni mu bëgg leen bëgg goo xam ni jaxasoo ñoom jaxasoo goo xam ni kenn mënu la ko misaal tàmbaleeg Cheikh Moustapha tàmbaleeg Cheikh Mamadou Fadel Cheikh Mamadou Bachir ba ci Cheikh Mamadou Mourtala nga xam ne sëñ Fallou diggante ma sëñ Fallou ñëpp xamoon nañ ko nga xam ni ñi mu sëriñ Serigne ñu bokk benn waajur Cheikhul Khadim kenn ku nekk kële sëñ Baara tudde ku sant Mbàkke kan la tudde moom ak say turandoo loolu day firndeel fonk gum fonk ay bokkam ak jokk gum daan jokk ak bokk jigéen ñaale sëriñ bi itam ñi sëriñ bi bokkal waajur wala ñi nga xam ni sëriñ bi ñi bokkal waajur ñi leen jur amul kër goo ciy dem te Cheikh Cheikh Mouhamadou Bara fabul kenn tudde ko ci kër googee kenn foo wër bëtiku na day gis koo xam ni sëñ Bara tudde na la doom di wër ci Sénégal suñ mbokk tarixa yi muy xaadir yi muy tijaan yi foo fi dem sëñ dañ lay wax ne sëñ Bara ñëwoon na fii jëflante na ak ñun bind na lii am bind ba ngi nii fépp nag mu nekk kon jëmm joo xam ni digganteem ak i bokkam rafet na digganteem ak cheikh yi cheikhul yi cheikh Issa Dieng bu dee ba koy tuddee ab taawam am na lu tax melokaan la cheikh Issa sëñ Tuubaa ko dund ba mu fees dell moo ko duy ba mu fees dell su dee fab ab taawam tuddee ko cheikh Mouhamadou Bara am na lu mu gis ci moom ci jëkkoo alors lu mu gis ci moom leneen loo xam ñoom ñaar ñoo ko xam kon loolu mën na firnde man day na firnde fo baara moo gis fii nag baara ñang yeeg baara ñang baara ñang gedeeg baara ñang kër ñang moo tax ñu ko doon tuddee loolu tur yooyu kon Cheikh moo leen baara nit la woon koo xam ni nit ñi xam ni la ñu koy wax naan suñu baara rekk de yi maanaam tàng taxul woon mu koy def làmmiñ bi moo diisoon bu mënul woon wax booy wax loo ñëw di ko wax eh, dina dina la daan wax dina loo ko wax waaye wax dina baax rek béy te doomu si tubaab bu ne dina baax dina baax bu dee dina baax doomu si tubaab bu ne dina baax dina baax loolu moo ko waraloon yàlla def ci moom al waqaar li ñuy wax wegeel yàlla def ci kanamam al bahaau yàlla def ci kanamam al yàlla moo def ci kanamam al waqaaru ba ko ko gis di ko respecté waaye ku ku baax la woon ku ku amul yërmaane la woon ku lewet la woon ku daan xeetli jaam yi la woon ku daan jàngale la woon ku daan dimbali ñëpp la woon dana xaalisam sax di su nawet masaa ñëw ba agsi fii nga xam nit ñi amuñu luñu rek soo bëggee da lay lebal waaye danga da nga may fay la lay wax da nga may fay day danga may fay soo ko fayul mu bàyyi ko yow xam ni amuloo ko ndax da laa bëgg a dimbali kon Serigne seex moo leen baara jëmm la woon joo xam ni ku baax la ku yaatu la ku lewet la ku daan xet li jaam yi la amul benn wàllu yàlla suñu borom boo xam ni dina fi nekk di alak ay nit mbaa muy soppi bindu bi yàlla bi suñu baara mu soreek loolu boo demee ci mun naa bi nga xam ñëpp xam nañ ko dafa jël mboolem soori alxuraan yi fukki saar yi ak ñeent jël asmaa ulaay xusnaa 99 yi jël turu yonante bi en lii isalaatu wasalaam moom la boole tëgg ci aw tëggin woo xam ne aw njàng leen aku ñaan noonu la def ci yeneen xasida yu bëri boo demee ci téere bi ñuy wax euh, moom Moussa bi naan moom la jox surul masul xar baax la fees ba niguun bàyyi baa ko lëm ci xarnu bi surul masul mooy jaamee ol kubra sëñ Cheikh Xadim moo ko jox secret boobu jaamee ol kubra bi sëñ Tuubaa Cheikh Xadim moo ko jox mu tëgg ko ak xase wax ci lépp li nga xam ni tur yàlla la euh, def na ko ci ca tarjumaan ja ma nga naan mboolem secret alquraanu karim ak secret asmaa ilaahi xusna yi mi ngi ci fatihatul kitab daal ni sirul fatiha mi ngi ci euh, aaya malik yow mi ni sirul malik yow mi ngi ci mi ngi ci alba ni sirul baa mi ngi ci al alif wa hasi hiya aliful aliful basmala non secret la daal ni wa haasi hiya al nuqta al fardaniya waaye sëñ baara loolu lépp li mu ci jublu mooy bëgg ñëpp ñi ci jariñu daf ne anna siral quran al karim wa jaami asma ila subhanahu fi fatiha al kitab wa sirul fatiha fi malik yawmi din wa sirul malik yawmi fil ali wa sirul ali fil bawul wa haasi hiya atuna al madani al fardaniya donc loolu day wane ni moom ku jekk woon as al asrar la te bëgg nit ñi jariñu ci moo tax mu bind ko taalif ko waxee ko kon Cheikh Moulayne Bara yàlla ko yàlla fayal euh, nit nag soo ko bëggee xam dangay xool ay jëfam ak ñi mu jëflanteel ak li mu bind ak ñi mu bàyyi noonu la def juboo lool ak i bokkam borom daaru seere ci moom moom Cheikh Mouhilin Bara seere ci borom daaru coono bi mu sonn ci moom coono bi mu sonn ci Cheikh Modou Moustapha coono bi mu sonn ci Cheikh Mouhamadou Fadil coono bi mu sonn ñi ko Sëñ Tuubaa dénk ko ginnaaw wax ne bu dul woon ak moom duñ mokkal alxuraan ci ak ndaw bu dul woon ak moom duñ yaroo nii seere ko ci borom daaru borom daaru njabootam gi moom moom Cheikh Awa maam Cheikh Awa Balla sëñ Modou Awa Balla nekk ay xaritam rote maam Cheikh Awa nga xam ni ginnaawam danaan wax ni su dara xewee sama ginnaaw suñ demee di ko dab danaan ana maam ana Cheikh Awa Balla ngeen wax ko ko bu ma kenn dab seeti ngeen la loolu lépp day wone maanaam euh, dëkkandoo bu rafet ak jàppandoo ak déggoo goo xam ni amoon na ko ak i bokkam ñëpp bëgg ko ba Cheikh Sidi Makhtar mii tey mu fab ko tudd ko maam Cheikh Awa Balla joxoon ko ko dénkoon ko ko am lu ma ko waxal ci moom moom mu sàmmal ko lépp loolu nag barina na sëñ Amar Fall a ngi fi euh, bu sëñ Bakkay tudde na ko doom sëñ Cheikh Coro ngi nii sëñ Cheikh Coro rek sëñ Tuubaa la ko tudde ñooñu la toppee noonu la toppee noonu la toppee ba kenn ku nekk mu jox si cër bi nga xam ni am nga ko ci moom di jaamu yàlla ba 1936 mu wàcc ab liggéey Cheikh Mourou Moustapha indi ko fii ci kàdd gi fa lañ ko denc bokk woon sax ci armée yi ndax maam Cheikh Ibrahima Fall foofu moo nekkoon buntu armée yi sëñ Bara fi ñu ko doon ci pénc mi rek ci maam Cheikh Rafaal moo nekkoon ci buntu armée li waaye Cheikh Mouhamed Fadil mu baax bi muy miiree comme sëñ Bara warmaal bi mu warmaalaale ko miiraale ko waaye armée li Touba mi ngi yemoon ci maam Cheikh Rafaal moo nekkoon bunt bi. sëñ moo tax ñu yokk ba ci kanam waaye foofu ci pénc ci pénc bi lañ ko defoon ndax Cheikh Sidi Mata wax na ma ni mooy wax naa sax baat duma ci dugg waaye foofu foofu lu mel noonu. su bi mu ko bi mu génnee àddina itam nag ci atum 1936 Cheikh Moustapha andi ko fii ci tubaa Euh, nim noonu mu mel ci sëñ Fallou mel ko ci sëñ noonu la mel sëñ Basiru ba gis nga ñi mu tuddee sëñ Basiru tuddee na ko ay turandoo yu bari sëñ Mouhamadou Abdoulahi sax sëñ Basiru la tuddee woon waaye kafuk euh, soxna ak mbokkam moo waral turu Moustapha yaag waaye sëñ Basiru la ko tuddee nga xam tuddee woon na ko ñetti doom sëñ Bas ko jël sëñ Bas màggaloo sëñ Mouhamadou Abdoulahi loolu lépp cofeel gu mu amoon te noonu la demoon ak ñëpp bi Cheikh Sidi Makhtar ñëwee ah daal di ni wax ni samay bokk laa ko séqal barab bu fekkee da nga faa nekk boo fa boo fa yënduwul kala fay mën a wutu war ngaa mën a bokk ak moom lépp war ngaa mën a séq ak moom lépp daal di wax seex Modou Mountakha mii ni ko def naa la yaay jëwriñu yoon wi jël sëriñ Sidi ku nekk gis na Cheikh Abdou Ahad li mu def ci Touba ci wàllu liggéey ci wàllu infrastructure yu mag yi wax sëñ Sidi ni ko jox naa la titre foncier Touba jox naa la commune Touba jox naa la village Touba jël sëñ Mamour seex Modou Mountakha ni ko sa waajur la mu tàmbali woon liggéeyal sëñ bi ci bitim réew tegaat naa lépp ci sa loxo sëñ Fallou ku nekk xam na ko xam-xam kenn ku nekk xamoon na ko ni mu bëggee alxuraanu karim akum njàngale mu fab cër boobu jox ko njabootu sëñ fàllu jaare ko sëñ aboo mu Cheikh Mouhamadou Fadel jël sëñ Moustapha am Cheikh Abdoul Khadir def ko muy maanaam jiite korite ak tabaski tey ndeysaan Masaalikul Jinaan ñu sargal ci ñëpp euh, mu fay jiite ji tabaski incha allah ak ak ak ak korite yàlla ko yàlla àggale yëpp barke sëñ Fallou jël sëñ Falloum def ko muy imaamu Touba ci Korite Tabaski jël sëñ Bassirou monsieur Abdou Khadir lépp li nga xam ni Cheikh Mouhamadou Bara tàmbali woon na ko ci moom sëñ bi yokk ko yaatal ko jël ci moom engagement yoo xam ni ñëpp dégg nañ ko ba tey yëf yi su agsee fii macha allah pas-pas boobu la ak wax jooju kon fu fekkee bàyyi Amadou Makhtar mooy mu jëlan ko ni ko yow yaa sës ci man ñoo bokk waajur lépp li nga xam ne moo sànce dëkk bi tegal naa ko sa loxo moo waral jumaa ji bi ko soog a tàmbali moo ànd ak moom dem ba ci sëñ Moustapha Saliou mu joxoon ko marbre bi nga xam ne sëñ Saliou ko dencoon yëpp ngir booba bàyyi amul mataar lañ joxoon liggéey bi ak chantier yi nga xam yëpp ñu ngi ko war a def ci biir dëkk bi foofu la tàmbalee ci ay bokkam ñëpp nangul ko nag waaw mu am ci tawfeex nangul ko yéene ko kenn ko ne lam la sant nga defal ko ko na mu ko bëggee woon nga xam ne bu doon taxawaay moom sax xëy na mën na bañ a àgg ci loolu ba ndam lu Cheikh Sidi am yooyu ñoo ko ko may ak jàppale gu ko jàppale kon ñoo ngi koy tënk fii sëñ Fallou Gallas di leen sant bu baax ci karawaan bi sëñ fabaat léppam nag di ko jébbalewaat ndax ki nga xam ne mooy sëñ Touba ndax moom li mu seex moom seex seex seex Madu Muntaxa ndax taxaw na seex seex Moustapha seex Sidi Maxtaar kanamam taxaw na ko ginnaawam kon nag ñu ngi fab lépp di ko delloo di ko ñaanal mu yàgg fi ci wér bi barakati rasulullahi alayhi salaatu wasalaam sëriñ bi nee na mi ngi sant yàlla bu baax nee na te di sant la it sëriñ bi yàlla nee ndax jotaay bii jataay bu rëy jataay bu rëy la. ànd ak bànneex la. it bu ànd ak bànneex. bànneex jur njëriñ. bànneex la it bu jur njariñ lépp liggéey sëriñ Tuubaa la. lépp liggéeyub sëriñ Tuubaa la. kon njariñ rek rek moo ciy bàyyi ko. ñu ngi ñaan nee na ñu ngi ñaan ci sëriñ Tuubaa. li ngeen lii ñu tàmbalee. yal na ko ni sunu borom àggalee. yëngutu gi ak dal gi lépp ne ko sunu borom def aw yiw nangul nu ko defal nu ko it nag addiyee sëriñ Touba yàlla nañ ko teewaat déwén te yàlla nangu liggéey bi may nu ak wér ban fekkee ko ay ati at ci barke sëriñ Touba yàggal fi nag sunu kilifa yi lool Muxtaar muy sëñ Ahmadou Muxtaar ak sëñ Muntaxa ak ña ca topp ñëpp jërë ngeen jëf yàlla nañ ko defaat déwén amin kon bu déwén allahumma amin